monsieur le président maa ngi lay nuyu monsieur le ministre du pétrole et des énergies maa lay nuyu monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du travail chers collègues monsieur le ministre maa ngi lay nuyu te di la féliciter bu baax ci confiance bi président am ci yow ba tax mu jox la ministère bu am solo bi ñi am yaakaar bu baax ci yow nag parce que am nga foo jaaroon te gis nañ liggéey bu rafet bi nga fa def ministère bu am solo bi nga yor aussi tënku ci ëllëgu Sénégal kon ñu ngi lay ñaanal yàlla may la ci ndam bu am solo waaye président Macky Sall aussi ñu ngi koy gërëm bu baax monsieur le ministre ci li mu def ci ci Sénégal parce que nag bi muy jot réew mi gis nañ ne Sénégal li ñu doon dund ci coupure metti woon na trop te tey gis nañ ne macha allah coupure yi jeex na tàkk waaye mu liggéey aussi lu am solo ci électrification rural te ñu mun ko seede monsieur le ministre waaye tey courant bu njëkk luxe la woon. waaye tey nécessité la ñi bëgg aussi ngeen dolli seen loxo bu baax a baax ci yéene boobu mu am ci waa kaw gi sama departement naam am na ay jéego yu am solo mu le ministre waaye bëgg nañ aussi ngeen ñëwaat fa yeggal yi dëkk yi nga xam ne bëgg nañ aussi ñu am courant lampadaires yi ñu ngi ko ciy gërëm bu baax parce que gis nañ ne lampadaires yi ñëw na waaye bëgg nañ aussi communes yu bari yoo xamante ni lampadaires yi yeggu fa bëgg nañ tey communes yooyu lampadaires yi ñëw foofu noonu ci département bu Koungheul monsieur le ministre fu mel ni commune bu Médina Taïro village Médina Taïro parce que man damay laajte que bu ñu électrifier dëkk yan critère la ñuy laaj parce que di nga gis ñu romb village bu mag duñ fa def dem ci village bu tuuti def fa te loolu aussi day indi ay fristration Médina Taïro dëkk bu mag la te dëkku sëriñ la gis nañ ne courant bi romb na fa mais ba léegi dugg fa ak ndun commune Ida Mouride monsieur le ministre bëgg nañu aussi ngeen jàppale ñu ñu am courant Médina Tobène Nguy Jéeri ak Piram monsieur le ministre xëy na du dëkk yooyu rek moo manqué courant waaye boo gisee ma tànn dëkk yooyu wax la ko mooy dëkk yooyu soxla nañ tey ngeen jàppale ñu ñu am courant maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm merci